bonjour euh, amis téléspectateurs mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu euh, di leen sargal ci tàmm bi ngeen ñu tàmm di ñu seetaan bu waxtu bi jotee nag seen émission les rendez-vous du samedi lañ leen di euh, dégtal ñu ci am mbégte di ci dalal ay invité de marque comme samedi bu nekk di ci ànd tamit ak samay ndaata naataango samay xarit DJ Ndali ñu ngi lay nuyu di la dalal maa ngi lay fay ay ni di la gërëm di la siyaar di siyaar téléspectateurs yi ñu seetaan saa yu waxtu yu commencé di leen wax naa leen namoon naa la. dëgg la mais ñoo la raw ndaal yi yow moom xam naa ne daal koor da nga ragal koor ba far daal. non non non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, mais mais vraiment c'était bien vraiment félicitations. merci non, non, non, non, non, non, non, non, alors non, euh, Diaw également non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, émission non, am non, non, non, non, non, non, non, les rendez-vous du samedi euh, comme non, non, non, à non, de non, non, non, non, non, non, non, de marque non, non, non, non, fêter lundi euh, non, la journée mondiale de la danse non, non, non, Wackel Cup. Euh, la RTS associe à tous les euh, événements qui se déroulent ici comme dans le monde. Euh, Moi, tax nag Malal Ndiaye Malal di directeur compagnie Bakalama di président président également de la fédération de danse du Sénégal Malal Nak, duñ ne gulet RTS ku xam la plateau xam à travers le Sénégal et le monde donc nous am plaisir di dalal mais honneur aux dames également dañu dalal Mariam Diop moom

jërëjëf alors Malal ñu ngi lay nuyu di la dalal yow tamit eh, maa ngi leen di fay ay nii vraiment di content toujours di ñëw ci plateau bi yoog ndaal yi pour waxtaan ci suñu aada ak suñu sosaanu réew euh, la danse à l'honneur euh, loolu la ñu wax euh, nga wax ci lan ci journée mondiale de la danse bi ñu fas yéene le lundi après demain quoi. waaw après demain Blaise Senghor déjà ñu ngi ci préparatif comité d'organisation bi ak donc lundi la journée internationale de la danse donc ren nag am na yeneen coppite yoo xamante ni ñu ngi ko ci yaakaar euh, en tout cas dinañ ci dugg ci waxtaan bi waaw euh, incha allah ci waxtaan bi ndaali invité yaa ngi nii de. waaw waaw xam nga malal moom saa dañuy am contentement chaque jour du ko du ko recevoir fii. Euh, parce que li muy teewal dafa yaatu. waaw xam nga ñun moom nous sommes rythmiques. dañ koy waxee ñun Afrique noonu lañ mel te danse dafa bokk suñuy mbir euh, xam naa ne tey bëgg naa ñu gën a dugg ci yenn mbir yi parce que journée bi journée mondiale évidemment mais am na war na am particularité par rapport ak ñun suñu danse fu mu ak évolution ak fi àdduna toll euh, Ndeye Marème ni nga ko ni nga ko ni nga ko annoncé déjà rek annoncé nga couleur yi mhm. ndax wax dëgg fa yàlla dañuy soxla toog ay écrivain dëgg la man damay bëgg di waxtaan ak ñoom xam man côté lecture amoon ay temps dama ko ba pare dañuy adapté tamit léegi ay chronique xam nga chronique yi mhm. dafa xew xalé yi di ko lire. Mhm. bëgguma def publicité. ci yene réseau yi. Euh, donc mom beauté maudite beauté maudite temps yi ça fait fureur au cinéma mu ngi en salle euh, cinéma pâté euh, depuis quelques temps quelques jours. Mhm. donc bataille day continuer Ndeye Marème ñu ñëw tuuti donc si beauté maudite. bala ñu ñëw sa carrière. mais beauté maudite mom ça fait fureur mais lan moy secret beauté beauté maudite. <laughs> bon c'est une belle chronique le bu yag ça fait presque. 7 ans ba ñu ko bindee ba léegi. Euh, bon ak euh, communauté xam communauté léegi mom danaka mo mo yoré réew mi. Euh, si communauté si ngay jàllale say information si ngay defee say say partage ak yoyu donc ça fait 7 ans si lañ partage si la décidé partager si réseaux sociaux yi Beauté Maudite après lecteurs yi di ñëw di ñëw di ñëw aujourd'hui ay millions de lecteurs là, et ça a commencé comme ça donc, on regarde euh, tout de suite avec la complicité de Omar Diaye, euh, euh, qui est aux manettes de cette émission. la beauté, la BA, donc la bande annonce de du film Beauté maudite, et on se retrouve euh, et on se donc Beauté Maudite comme ni ñu annonçait, ko annoncé 5, euh, en salle euh, cinéma pâté, fële Mirmoz. Mermoz donc nit yi c'est une chronique mais il y a trois tomes là, mhm. n'est-ce pas Ndeye Mariam oui trois tomes là. tome 1, bi en série waaw def téléfilm bi pour ad yóbbu ko et macha avant première bi guichet fermé il y a eu vraiment tous les lecteurs sont venus en masse pour répondre à ça ah hein? tome mooy pàcc waaw ñetti la waaw waaw saison donc tome 1 bi mom lañ def ben saison donc saison bi 15 épisodes là de 26 minutes. De 26 minutes. Oui, voilà. 15 épisodes de, de 26 minutes. C'est quoi l'histoire de Beauté Maudite L'histoire de Beauté Maudite, ben femme là, bo xamné euh, yaayam dañ ko enceinte par un touriste français. Légui nak euh, bien sûr mu juddu si bi on connaît les c'est une fierté et tout ça c'est leur richesse donc euh, papam ba mu demee Kër Lambert pour lolo, c'est si la mm. Ah oui. Le deewee après yaay ji judd yaay ji ba a wasin moom tamit mu gaañu ndaw si ndaw si juddoo ak rafetaay bu bu ah jéggi dayoo elle est très belle et donc euh, c'est à partir de cette beauté là voilà qu'elle va avoir les désagréments de autour d'elle on di ko voilà un peu l'histoire du film une bonne partie yaa hein, tourné Ziguinchor euh, euh, Niaguis et Fanda une belle région oh, ah oui magnifique magnifique hein. euh, splendide Ziguinchor ça change un peu nous de Dakar dem ces régions yi et surtout presque 90 de nous jouons ces films. Nous film bi ay de souche et tout et de découvrir à quel point nous ñu acteurs acteur joolaa yi ni ils se donnent dañuy bu ñuy joué dañuy mel ne seen xol dañu koy dañ koy def ak xol. et voilà c'était euh, bien de découvrir ça. ça oui mm-hmm. dañuy dañuy dañuy mayaale ñu jaar foofu dem waxi bakalama parce que mm-hmm. bakalama en joola. Mm-hmm. Euh, ça signifie la la calebasse c'est cela. Euh, mooy la compagnie donc bakalama bi nga xamante ne nii ko yow Malal. existe depuis 1972 mais y a ko professionnalisé en 1994 n'est-ce pas parce parce qu'auparavant, auparavant euh, association la mm. euh, c'est carrément une compagnie pour a été parcourir le monde nga wax ñu euh, ces compagnies Bakalama donc euh, compagnie Bakalama déjà comme nous avons dit, pour nous, wax histoire donc historique c'était en 1912, les ressortissants du village de Thionkisil ils ont vraiment créé donc c'était pour un peu les nga xamante leur culture leur tradition nous ont ko euh, jox mais donc aussi comme nous euh, le dans le quartier de face de l'Orme et tout nous fréquenté koy fréquenter di and et en 1994, déjà à mon ñoo nous avons ñu ngi doon professionnaliser aussi donc ci danse moderne ci percu ak nous ne pourquoi pas

ci suñuy pap yi fi nekkoon déjà def nañu ay tournées yu bëri ay Japon état mais ñun biñ ñu ñëwee aussi am na lu bëri loo xamante ni ci ay raay ak yëpp dem nañ ko jëli aussi ci ci ci à travers le monde. mais mais mais Sénégal en miniature culturellement parlant ngeen dajale maanaam waaso yi nga xam ne yëpp moo nekk Sénégal ku nekk ak sa rythme ku nekk ak sa façon de danse ku nekk ak sa mën naa ne cosaan. Mm. ci ci ci ni ñu ko mën a waxee euh, ndax da nga leen di dajale. di am leen doo leen di jàngal loo xam ñoo koy bokk muy identité culturellement bakalama wala ku nekk da ngay indi sa touche rek ñu boole ko. waaw donc am na loo xamante ni dafa des muy identité bi mooy suñu culture. loo xamante ni suñu cosaan la déjà si Bakalama su le village de Thionkisil ak yëpp loo xamante ni daf fi nekk mais leneen li comme tey Bakalama am na séeréer am na joola am na tukulóor donc ku nekk si sa xeet da ngay indi li nga xamante ni yow si sa xeet la ñu defar ko parce que aussi ay professionnels ñoo fa nekk tey ki nga xamante ni muy ñii di fecc yëpp chorégraphe bi école la génnee donc def na ay stage un peu partout dans le monde donc ñu xam loolu la xam nga loolu aussi boo koy def il faut nga am ci xarañte nga jàng ko mën ko c'est vrai que sur le temps am na mais académiquement aussi il faut nga am ay professionnels yu koy def mm. mu nekk aussi ay xale yoo xamante ni macha allah xale yu xarañ mais dañuy jàngale aussi mm. école école de école formation la aussi bakalama bakalama mm. mais Sénégal bëriwul école école école de danse waaw am na école de danse parce que dañuy former fi ak l'extérieur actuellement même chorégraphe bi actuellement mu ngi en tournée pour euh,

lan ban regard la nit ñi di jox boo defaree ba loolu war a def prestation sénégalais bi toog di seetaan xam nga loolu moom toujours moom la ñoo dafa am benn public boo xamante ni euh, ay novice lañ si lu ñuy def te pourtant ñun ñëpp tey ku nekk si ñun tey am na loo xamante ni mu ngi ci yow socialement culturellement moy nga nek tukulóor couleur, na foo xamante bu fekke ne lal nañ ko si couleur, parfois di nga ko gis lol ci nit la nek donc l'ol nak il faut que ñu défar ko mais pour ñu défar ko aussi dafa am limu war moy ñi ñi jang ko ba paré ñu def xam nga lepp loy def ci xam-xam la wara tonku mm-hmm. donc xam-xam bobu fokk nga dem uti ko dem def ay recherche comme euh, ki di bind num koy defee comme ki di def musique numuy dem defee ay recherche danse tam l'ol la laaj parce que danse même pour nga def ko c'est un livret da ngay bind texte bi ba paré li nga bëgg def koy bind dang koy bind musique bi dang koy bind costume bi, dang koy def dem seet li nga war a def il faut nga xam lan nga war a def ba pare ñi def aussi lépp lu ñuy def ay figure la day wax lépp loo bëgg wax ci danse ci sa yaram nga ko wax war a waxee ñu la danse est une expression corporelle sa yaram nga ko war a waxee comme musicien nu muy waxee ci gitaaram yow danseur bi sa yaram nga war a waxee mm-hmm. loolu waral te tey dafa am solo pour ñun Sénégal loolu ñu nyumun ko ñu mun ci taxaw en tout cas ñu ngi ci ay ñu mun taxaw tey képp koo gis si àdduna sur le plan culturel le coloniser tey jii euh, bon maa ngi jégal ci wax su ñuy doom ak ñun ñëpp ku nekk da nga amoon benn rêve américain lan la culturellement rek la ñu fexe dañu fexe ba seen culture inculqué ñëpp ñun aussi ñu am loolu mm-hmm. ba pare aussi ñu bañ am complexe loolu mm-hmm. tey jii ndaar yi mun na génn fii tey mun nañ ko tegal beneen musique Michael la il est fier que buñ ko tëggalee tey li nga xamante ni mooy Ardine wala Wango il a am na complexe boobu alors moom loolu la donc loolu aussi c'est des problèmes yoo xamante ni il faut dafa laaj formation mais dans les écoles écoles dafa mm. même école dans les écoles il faut que nous dougal ci lolu suba mm. xalé bi su xamul culturellement mom limu mu doon. mënu mm-hmm. ko représenter lenen rek lay dem jéggaani. donc même buñ koy jàngale aussi foog ay nit yu xarañ diko ko parce que mm. jàngale aussi pédagogie la. du da ngay jël malal dougal ko fo wala keneen da ngay jël ko xamné ne jàng na xamna na li muy jàngal xale yi. ba nga xamanteni suba ñom ci luñu nekk ci culture wu nak ils seront fiers pour wax né ñom li lañu parce que xamnañ ko même bu yàggee lolu mun nga ci créer ay metteurs en scène yu mag tay xalé bu à bas âge inculqué nañ ko muñ ñukoy jàngal lan moy danse lan moy culture muy def ay recherche culture mais suba kooku am nga chorégraphe wala metteur en scène wala parce que tay ñun dañuy ak am na ay bind kat yo ne dañuy jël li ñu bind euh, def ko euh, sur scène justement euh, euh, euh Marème mi day Marème Job day bind chroniqueuse la Andali écrivaine la est-ce que mom ay bindam parce que bind nga sept romans au mhm. passage mhm. yaa ngi bind depuis pas quelques années pas mal de temps ñu bëggoon la laaj balaa ñi laaj ndax ñu lay laaj ndax di nga collaborer prochainement ak Malal mhm. lan mo la inspiré lan mo la yóbbu ci écriture mais li wax ni c'est très important parce que man lool lay défendre toujours dama nan que dama toujours né, c'est seulement à travers la culture qu'on peut valoriser l'économie d'un pays parce que pays euh, euh, euh, boo xoolee muy Chine comme nous mu ko waxee muy États-Unis ak yëpp pour ñu suqali seen réew dañoo basé wu seen culture donc c'est seen accoutrement c'est à travers cette culture bi ñu valoriser loolu et nous tey de plus en plus jeunes nous, ñu ngi ay panafricains nga xam ne lépp lu ñuy waxta lu ñuy bind booy li tax suñ chronique yi am succès parce que ñun bu ñuy bind C'est dund société Nous voilà à l'occidental vraiment à la sénégalaise Car carrément des fois y y des gens qui nit ont gens dañ lay gens je suis malienne mais qui tax ma commencé xam des yi qui parce que qui des dañuy qui lu des wolof en français on parle beaucoup beaucoup de la culture sénégalaise de des les koy valoriser les pléniers valoriser yi euh, façon de faire tout c'est-à-dire euh, génération d'écrivains aujourd'hui dañuy valoriser suñu suñu suñu culture suñu tradition voilà tax yi ñu bëgg ko dañuy bëgg dañuy bëgg affaire yu mais ça vous inspire ça vous inspire euh, je ne dirais pas que ça m'inspire, mais <laughs> même chose je dirais que la même chose peut-être d'une autre manière je si danse la si. écriture non danse danse euh, oui il faudra que parce que les plumes que man en tout cas chaque fois dama ci dama suis bu baax. Mhm. duma rek il faudra que je peut-être que xol lan nga bind en cohérence ak danse voilà ok D'accord. Les gars, yow ñu bëggoon la laaj euh, euh, donc euh, film bi. Mhm. parce que xàmmee nañ ci est ay star mhm. de de de série sénégalaises sénégalaise. Mhm. naka le casting bi euh, casting bi déjà pour Ziguinchor dañu nous dem Ziguinchor ñu à centre culturel parce que foofu la artistes yi di dem ak yooyu ñu demander def casting donc il fallait il était nécessaire que nous ñu dem Ziguinchor jël ay acteurs Joola parce que langue est en ko et tout donc euh, mon petit lañ on a fait une semaine là-bas Nous avons que des joola là xamuñ Nous du public mais xam du ne ak série bi fait ñi dinañ Bon, il y a Augustin, que je félicite au passage, qui, qui, a ah il a été formidable. Hein, voilà, qui a gagné, euh, mais qui a gagné, qui vient de gagner le prix. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il a gagné un prix tout récemment, le premier prix de 40 000 euros de pitch euh, en Côte d'Ivoire. Mhm. Je le félicite euh, au passage. Et il y a aussi euh, Bachir, Bachir, voilà. qui est un des acteurs principaux. Et l'actrice principale, je dirais, qui est vraiment l'actrice principale du film Natacha. voilà, Mom Koubesla et tout. Mais, elle, est magnifique. Hein. elle est magnifique. on ne dirait pas, hein, vraiment. elle, a du métier. Wow. am un talent am talent et voilà daf ko bëgg dal, daf ko bëgg bu baax Xalé yi dañu bëgg dañu bëgg cinéma ba paré dañu dañuy jox sen bu metti pour def sen rôle donc tournage bi ça se passe entre Dakar et Ziguinchor voilà euh, c'est facile bah, je dirais, hein, <laughs> c'est plus facile ah, à gérer en combien de temps, combien de temps pense. vous tourner euh, Deux mois. Deux, mois, deux mois tourner. Et, puis, euh, Maïfa Taliné, euh, tome 1, tome 2, tome 3. Est-ce que les adaptations tome 2, bien envisagées Bien sûr, bien sûr. Commencer à des des Parce que euh, c'est plus facile de dire un livre adapté euh, au cinéma que de commencer à Donc, le tome 2, il existe déjà. Donc, en saison 2, tome 1, ça a été fait rapidement. avec une autre écrivaine parce que ñun dañu bëri écrivaine yi dañu bëri Nous la euh, on travaille tout le euh, temps ensemble. Nous, la encouragé euh, ñuy que le film Ndali a été sélectionné à Vue d'Afrique donc le festival bu am Canada. Mhm. festival ba ngi tudd Vue d'Afrique au mhm. Canada. Mhm. donc nous, ci on croise les doigts. nous la ci et puis di la ci souhaiter plein succès. c'est la première que j'ai écrit. exactement je l'ai scénarisé. qui signifie pardon. oui qui signifie pardon en en serré, oui. Ah, très bien. Bon, vous dites, nous sommes mais. Mm-hmm dañ doon fêté tamit jeudi bii la journée Ndali mhm. euh, mondiale du livre et du mhm. droit d'auteur mhm. euh, xam nga les événements culturels moom macha allah daal ci culture de fi dox euh, donc compagnie théâtrale nationale Daniel Sorano organisé une lecture spectacle c'est différent d'un spectacle xale yi d'ailleurs loolu lañ doon laajte lan mooy différence bi lecture spectacle mooy dañuy jël ay œuvre bu œuvre yu mel bu par exemple Chaka Cheikh Hamidou Kane l'aventure ambiguë le Harit Poet, poète Amadou Laminsal, qui était notre invité euh, le samedi dernier. Mhm. donc jouer co, lire plutôt sur scène. Mhm. Euh, avec nacleton le ton euh, qui s'y tout donc nous proposait un extrait et on se retrouve juste derrière avec les magnifiques comédiens du théâtre Daniel Sorano. On cherchait un guerrier. Tu ne fus qu'un boucher. Oh, chacun. Toi, Zoulou. Toi plus que peste et feu roulant de brousse. Une basse-cour cacardante, une sorte de volière de mage mille, oui. Pas un mot de regret. On regrette le mal. Le plus grand mal, c'est de voler la douceur des narines. Le plus grand mal, c'est la faiblesse des entrailles. La faiblesse du cœur est pardonnée. La faiblesse du cœur est sainte. Je vais mourir d'attente. Que de cette nuit blonde Oh, nuit, Oh, Man Olivier, Que du tam-tam surgisse le soleil du monde nouveau. Répète après moi, Dieu, donnez-moi l'attention. Dieu, donnez-moi l'attention. Encore. Dieu, donnez-moi l'attention. Maintenant, va reprendre ton verset. Sois précis en répétant la parole de ton Seigneur. Il t'a fait la grâce de descendre son verbe jusqu'à toi. Et toi, misérable, moins sûr de la terre, quand tu as l'honneur de les répéter après lui, tu te négliges au point de les profaner. Tu mérites qu'on te coupe mille fois la langue. Euh, vous-même, euh, chef, ne réfugiez-vous pas à envoyer vos enfants à l'école étrangère À moins de contraintes je persisterai euh, dans ce refus même, s'il plaît à Dieu. Nous n'y sommes allés nous-mêmes que sous l'effet de la contrainte. Donc notre refus est certain. Cependant, la question est troublante, maître. Nous refusons l'école pour demeurer nous-mêmes et pour conserver à Dieu sa place dans nos cœurs. Maître, je vénère mon père et le souvenir que vous en avez. Mais je crois que le temps est venu d'apprendre à nos fils à vivre. Je pressens qu'ils auront affaire à un monde de vivants où les valeurs de mort seront fouées et faillies. Non, Grande Royale, ce sont les valeurs ultimes qui se tiendront encore au chevet du dernier humain. J'étais le chemin d'eau et tu m'entends poli contre toi. Je pense à toi si fort. Si fort, tu sais. Je pense à toi si fort, tu sais. Si fort. Source intime. Connaissance de nos racines. Complice de la même scène, Et ta présence assise entière en moi. la poésie euh, en scène, le chant des zéniths. Euh, donc c'est comme ça euh, qu'on avait intitulé le metteur en scène Benjamin Jules Rosette. ce magnifique spectacle, cette lecture spectacle, plus précisément. donc lecture spectacle nous mooy ñu œuvre écrivain auteur Magamak maga, a mm. Amadou Lamine euh, Moins Senghorien la euh, héritier senior, euh, grand poète lui aussi et cher ami Doukan qui n'a pas aimé qui n'aime pas l'aventure ambiguë man c'est le casse-tête de ma vie quoi <laughs> c'est une de mes œuvres préférées un livre de chevet je sais pas naka nga ah, mais c'est trop bien c'est trop bien nous découvrir parce que pour nous, <laughs> c'est tout un problème mais c'est bien à travers euh, système bini, nous ñu découvrir une œuvre yi peut-être nous leen pousser ça. ñu nous euh, féliciter Boubach, les comédiens certains comédiens grands comédiens euh, de Sorano euh, sous la direction de Mohamed Villiers moi, metteur en scène le directeur de la de la troupe théâtrale de Sorano Omar Siss, moi, moo joué dans le rôle du maître tout à l'heure Samba Diallo il est fabuleux Gisnien, le gosse donc Roger Sambou Ndeye Fatou dans le rôle de la grande royale ñu leen féliciter et puis Renaud Farah c'est un euh, franco-sénégalais Bo xamné ne gëna dégg wolof gëna bëgg ceebu jën ñëpp il euh, collabore avec Sorano mm-hmm. les les comédiens de Sorano euh, mom également mo don jox réplique bi tout à l'heure Mohamed Villiers ñu leen di féliciter bu baax Xamna naa ñak di lañ leen fi indi donc yow nga seetaan léegi Ndiaye Malal extrait bi est-ce que inspiré na la waaw xam nga lutax moy liñ doon waxtaan légui sax dang koy gis fofu déjà même xalé bi ñu indi déjà ñi fa nekk ci xale yi ñi toog ñoom rek déjà lii am solo mooy da leen koy inculquer ñoom bu ñu demee dinañu commencer foo di bind parce que ñun ñëpp boo xoolee suñuy génération loolu la woon bibliothèque dafa doon am ak yëpp danga nga doon dem bibliothèque di liir donc da nga doon da nga doon am envie bind ay poème école dañ doon foo di bind ay poème loolu yëpp ñoo ñoom bu ñu gisee lii déjà ñi nekk sur scène xale yi fa nekkoon même su fekkee ne ñaar wala ñett rek nga capté ñoo xamante ni mun nañ dem suba nekk écrivain wala ñu wala ñu nekk euh, nuutati euh, scénariste wala ñu nekk leneen wala ñu dem ba nga xamante ni lecture boobu dañ koy bëgg dafa am solo donc am na loo xamante dinañu xam aussi ñan ñoo bind œuvre yooyu dinañu bëgg a nekk loolu donc c'est dafa am solo donc xale yi il faut que toujours ñu leen di boole ci processus yëpp yu ñuy def ci formation ak inculer vraiment les valeurs valeurs yooyu ah, tax na ñu demoon jëliwaat ci même journée bi nga xam ne ay mi ngi fa woon euh, ki nga xam ne mooy directeur Sorano di liggéey lu mucc ayib aussi monsieur Dione wax dëgg fa yàlla euh, taxawaayu Sorano gis nañ ñuy gën na yaatu léegi ba bunt yi gën na ubbeeku dañuy dem jëli réaction am dellusiwaat ci plateau bi nous avons choisi des textes de Cheikh Ami Doukan, euh, des textes de Léopold Sédar Senghor et des textes de Amadou Lamine Sall pour en tout cas euh, marquer cette journée mondiale du livre et de la lecture ici à, au Théâtre national Daniel Sorano. Alors cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons lancé depuis l'année dernière, Sorano à l'école. C'est pour faire revenir le théâtre dans les écoles et encourager et motiver les élèves à lire, mais aussi à la représentation théâtrale. Euh, j'ai voulu aussi qu'avec l'accord du DG, M. Ousmane Barou Dion, j'ai voulu qu'on on, on travaille avec les écoles, qu'on présente un certain nombre de spectacles avec, pour les écoles, en faisant participer les enfants, bien sûr. Ils ont des choses à dire et qui nous, qui nous poussent justement à... Par exemple, le, quatrième qui, le quatrième qui était là aujourd'hui, on aurait pu présenter des choses sur un spectacle sur Mariamba, voilà, euh, à l'instant donc, nous euh, donne cette âne le DG de Sorano avec le metteur en scène qui a magnifiquement donc euh, créé ce spectacle, cette lecture spectacle. Et je précise que Benjamin Jules Rosette est le créateur d'Ali du théâtre noir à Paris. Le premier, c'est pour Nene, euh, euh, interview bi dafa gudd xam naa dinañ ko retrouver si suñu yeneen émission euh, c'est pour valoriser la culture na noire parce que temps boobu la ñoom Senghor ak Léon Gontran Damas ak Aimé Césaire lui d'ailleurs il a connu très bien Aimé Césaire mbokkam la donc doon xeex pour faire pour faire valoriser et puis pour surtout faire rayonner la culture noire mooy lu am solo te xam nga ay ni gis nga ci li nga wax légui li ci extraordinaire moy suñu culture ñun en tant que noir da mos am valeur xëy na fësal bi représentativité bi. ak ñun ñi nga xam ne ñooy euh, africain surtout noirs yi niñ koy niñ koy taxawaay niñ taxawaay bi ci war am ba képp ku ñuy xoolati da ngay gis culture ci ñun. te on a ce problème ñu ngi koy wax léegi ah Ndeye mi ngi wax euh, kii mi ngi wax léegi malal léegi mooy xale yi gis nga léegi ni ñu leen di commencé waat initier ci lii. Mhm. te théâtre bi mu wax noonu monsieur Dione yaa koy dégg. Mhm. sur scène mhm. amatul. Mm. waaw amu amatul te yooyu yëpp dafa am jeexital yu mu daan def ci ñun da daan participer suñu éducation suñu doxalin suñu nekkin suñu lépp mais daal di wil ma rek doo ko laaj lu mu wax léegi lu mu wax foyer moo war ñëwaat foyer dafa non vraiment dañ ko war a xeex foyer dafa war a ñëwaat si école yëpp parce que foyer man maa ngi koy fàttaliku bokk na si li may fàttaliku ba ma nekkee xale mooy foyer vraiment nga xam ne da ngay bokk si troupe théâtrale wala nga bokk si troupe danse et daf lay daf lay kii quelque il y a de cela deux ans léegi amatuma jot. j'avais organisé ben ben ben ben benn kii dans une école euh, c'est-à-dire euh, xale yi dama leen doon wax ne leen dama dem seeti professeur de dessin yi nekk ci école bi ma ne leen dama bëgg les meilleurs élèves yi nga xam ne ñoom dañuy dañuy dessiner laa bëgg ngeen recruter ma leen ma defaraax ñoom atelier de dessin et donc pour faire l'atelier de dessin dañu waroon lire

il y avait à peu près cinq comptes ce compte bu que 10 pages mais nous lire yëpp c'est-à-dire nous ñoo trouvé trouver moyen de pousser les yi lecture euh, c'est ce que le DG a dit euh, euh, Nous à l'école c'est un concept que nous avons initié commencé alors tout de suite en parlant mm. des enfants des élèves mm. on écoute Denis déglu élève élèves institution Notre-Dame bi ville mm-hmm. et on se retrouve juste derrière on nous a présenté l'œuvre de Samba Diallo, c'était très intéressant. On a eu des personnages qui ont su entrer dans le jeu, qui ont bien montré l'émotion. c'était très, c'était très impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de, avait beaucoup d'émotions en même temps. Quelle est ton œuvre préférée africaine Sous l'orage. Ouais, sous l'orage. Euh, J'étudie à l'institution Notre-Dame. Euh, pour le spectacle, j'ai très bien compris. Ils ont très bien joué. Le maître. C'est ton personnage préféré. Maintenant, toi, quelle est ton œuvre au programme ou bien ton œuvre sénégalaise ou africaine préférée que tu aimes lire euh, Sous l'orage. Pourquoi euh, Parce que j'aime bien, j'aime bien tout ce qui se passe dans le livre. J'ai bien aimé lire le livre. Ah, mais au moins ça euh, ñu ngi gis ay xalé ay élèves yu ma sous l'orage <laughs> ñi naan ma l'aventure ambiguë non li ça fait du ça fait plaisir du bon au cœur euh, parce que ñun li rek man jusqu'à présent j'ai du mal à utiliser un ordinateur bala à lire mhm. ci ordinateur mhm. euh, j'adore le contact du livre il y a rien de tel en fait mhm. donc Malal dégg nga xalé waaw c'est vrai comme nous nga aussi li da ngay am trop surtout euh, ku melni man parce que amna chance de formation bibliothéconomie nekkoon euh, donc euh, bibliothécaire ci les quartier c'est important comme Ousmane Baro nous muy def ni defe naa ñun ñëpp dañu dañu dañu am pour mun ko def même dans les quartiers populaires mm. parce que man def naa presque pendant quatre ans di jël xalé yi comme niñ ko wax ci œuvre yi di dem jëli ay professeur lycée Kennedy ak yooyu ñuy ñëw ci quartier bi di dimbali xalé yi ci lecture di di leen dimbali ci ci yenn œuvre yi c'est important même ASC même ASC yi mën nañ ko utiliser comme ay canon hein, euh, parce que gisatuma côté culturel bobu non ci ASC les football rek mo ci xaw upp té te mën nañ ci ko utiliser période norane bi di créer yu mel nii di lire lo xalé yi ci ko ñi parce que ASC c'est important man suma la waxee produit ASC la ASC Face de l'Homme donc man lim fa nek pendant cinq ans yépp ñun ñoo jël trophée préfet yi nga zones ni zone 2 la donc si a aussi damay lancer un message par rapport ak suñu centre culturel socio bu nekk biir il y a une bibliothèque presque ça fait sept ans ça ça me fait mal au cœur de tëj donc là aussi je pense que la commune les femmes culturelles, culture transférées, transférée Nous nañu des acteurs sérieusement ñu waxtaan ubbi bibliothèque mhm. parce que les yi dañ ko dans le quartier c'est important c'est important alors euh, euh, Mariem nous euh, savons si ce film bi donc avec la complicité de Omar donc BA bi dañu bëggoon dama bëggoon proposer bande annonce bi téléspectateurs nous avons am un aperçu pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé en, en, en salle, parce qu'actuellement, ça fait fureur. Hein? Ndali, mais, mais, mais il, faut, il faut y aller pour le, pour le croire. Non, il... Man, Omar Sall, mais ay ñoom Kébé mais les gars il faut que vous ayez peur hein parce que xam Omar Sall ay Mati. donc au passage je les salue parce que euh, ma formation a été faite à Sinecap. Mati Diop ouais. à Sinecap, ah oui. oui j'ai fait ma formation chez Omar Sall oui chez Omar Sall. Euh, euh on l'a salue au passage. Dernièrement, euh, dernièrement xam naa dinañ amaat plaisir de recevoir ko Souleyman Kébé également. ak borom le mouton de Sadi. Mhm. mais on a vraiment fait mhm. Ben talent boo xamante ni mhm. luy festival de Cannes ñu ngi fay am. ay prix Souleyman, quand il est venu avec sa femme il est venu à l'avant-première mu mais on m'a dit que les tickets sont finis ma ne ko non donc tout de suite avec euh, euh, donc euh, on va vous proposer un sans souvenir ak suñu xarit Ndali et bu triste vraiment sama xarit la woon donc on regarde et on se retrouve juste derrière Mboki, tu instant souvenir dina fàttaliku jëmm juy tooyal xol ndax ñaari fan ci ginnaaw rek lañ ko doon fàttaliku mu dëppook anniversaire di bés ba mu génne woon àdduna juróom benn at ci ñi ko gënoon a miin di ko woowee Bibuya mi ngi judd le 22 novembre 1965 fii ci dakaar di doom Ibou Faye bokk ak Lamine fay bokk ak Vieux Mac Faye bokk ak Moustapha bokk ak Adama Faye ak ñeneen Habib fay màgg ci li nga xam ni mooy musique donte ci la juddu ndax ci ba mu amee ñetti at jëm ñeent rek mu ngi commencé di fréquenter li nga xam ni moom mooy groupe Watosita 1 bi Ousmane Sow Ishar taxawaloon loolu berse ko mu màgg ci environnement boobu yóbbu ko sax ci ba mu taxawal li nga xam ni mooy premier groupe am ànd ceeg ki nga xam ni mooy Michael Souma di Watosita 2 waaye loolu ba tey taxul woon Habib am li nga xam ni mooy ndigalu def musique ndax danaan làqatu di ko def ndax baayam daa bëggoon mu jàng ba dénkoon ko ki nga xam ni mooy magam bi di Vieux Mac fay bis centre culturel Blaise Senghor di organiser benn li nga xam ne mooy concours la yu jëm ci instrumentiste groupe yi moo ko Ibou Cissé demoon fa ëmpale woon ni sax Vieux Mac Faye bokk na ci ñiy teewe loolu bokkoon na sax ci ñeneen ñi ñu wax maanaam ci jury xarañteem ak may gu ko yàlla may ca bam taxawee ci kaw seen budget tax na bis boobu la ko Vieux Mac Faye nangul li nga xam ni mooy cër gi ko yàlla may ci musique ngir mu tàmbali koo def léegi dëgg-dëgg def boobu yóbbu ko sax mu dem di commencé fekkee répétition super jamono ndax ginnaaw gi aadama fay juga fi nga xam ne super jamono labin faye fa wut won lolit it mu mel ni luy defar yoonam ndax 1984 bi kutulu kunda ñëwee dakar di def concert am bu ba te super jamono ak super étoile waroon def premier partie ba abib mo fa remplacé woon bob sen mi nga xam ni moo waroon super jamono bis Senegal sénégal commencé ràññee kii di Habib fay ci même at bi Super Étoile di taxawal beneen groupe bu ñuy wax Super Étoile 2 ca doxantoom ba moom ak Ibou Cissé daje guitariste su Super Étoile bu mag ba di Daouda Gassama kooku convaincre leen ba ñu tàbbi ci groupe boobu loolu di wane li nga xam ni moom mooy yoonu Habib fay ci musique Super Étoile 2 jóge fa wane fa boppam marqué fa empreinte ba mu yóbbu ko Super Étoile 1 mu commencé di def dëgg music. musique dem super étoile 1 boobu terewul Habib wéyaloon di nga xam ne mooy jàngam ci même at bi mu dem di waja deflinga def li nga xam ni moom baccalauréat ba mu des ñaari semaine super étoile war a tukki kooku di magam bi di Adama Faye waxtaan ak waajuram bu góor ba Ibou Faye ba mu d'accord jox ko ci ndigal jëndee musique bi mën nañ ne ak jàng bi indi changement indi beneen style de musique commencé wane xarañteem ak artiste multidimensionnel bi mu doon ak polyvalence bi ko yàlla mayoon waaye nekk super étoile terewu ko woon générosité bi nga xam ne moom la ko yàlla mayoon taalibe Serigne Salim Mbacke bi yaa gën koo wane ci ñeneen ndax mën nañ ci cité ñu bëri ñoo xam ni Habib jot na liggéey ak ñoom ku ci mel ni Souleymane fay ku ci mel ni ñongolo ku ci mel ni ki na laam mën nañ ci cité ñu bëree bëree bëree bëree bëri waaye Habib yàlla da ko defoon mu nekk nit ku modeste nit ku ëmbal ku dul fëgg dënn ndax boo waree Afrique ba nga génn sax Afrique dem Europe wala feneen ci États-Unis di nga dégg ay guitaristes yu mag yu lay xamal ne la ñun li ñuy mën nii bu doon Habib Faye duñ ko mën li ñuy wax jege kiiraay la jegewoon nañu lool ba xamuñu ko ginnaaw gi mu dëddoo àdduna juróom benn at ci reen ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd dàqal ko fi mu jógee adieu l'artiste adieu le musicien adieu Habib Faye Abib Faye euh, hommage à Abib Faye mon nek vraiment l'aura rafet lu ñu dijee ndaal yi tay. tey euh, Habib xaritu un talent euh, extraordinaire c'est un virtuose hein, pour moi mm-hmm. alors Ndali wax tout ici Abib. Habib ki nit ku yéeme mm-hmm. ci boy geussu ci miram. bi muy euh ki nga xamni ni Bob Sen ci concert Touré Kounda bob parce que Touré Kounda mo nekkoon nak groupe bu mag bi mm-hmm. Super Étoile ak Super Jamono doon def première partie Abib Habib jour boobu dafa ñëwoon nekkoon ci mbooloo mi pour seetaan. ah oui waaw bopp seen a waroon tëgg ñu koy seet gisuñu ko euh, ci la ñu wax ci micro bi ne Habib Faye appelé. Mm-hmm. jour boobu lañ découvrir Habib Faye ci àdduna mm-hmm. bi muy remplacer aussi ki nga xam ne mooy Kabou Gueye. Mm-hmm. biir super étoile di jël les rênes. mën nañ ne. Euh, tamit lu bett ñu bëri la mais li gën a yéeme ci Habib mooy changement bi mu indi musique fusionnelle bi mu indi ci Super Étoile mm-hmm. parce que boo xoolee diggante 86 ba jëm ba 92 mm-hmm. album yi dàq ci Super Étoile année yooyu la mm-hmm. dëgg la te yëpp Habib a ko liggéey mais terewul woon loolu ci biir li muy liggéey ak Super Étoile ak Youssou Ndour yëpp Habib mi ngi jàppale yeneen artiste mhm. ndax ki ne laam bi mu demee ba dem toogoon bitim réew ne dootul day bàyyi musique Habib ba ko delloo si mooy cassette bi ngay dégg ñu naan le retour waaw moo ko defar nongoloo tey boo demee évolution bi ñu mujjee gis ci moom Habib moo def album tamit fukki junni bu Souleymane fay mhm. waaye aussi àndoon ak Lemzo Jamono jàppale magam Lamine fay euh, di woon ku baax di woon ku oyof diwoon ku yaatu di woon aussi ku généreux dans l'effort surtout ci xam-xam dañ koy ñaanal rek euh, mais ndax est-ce xam nga émission bi mu def Sénégal Dakar RTS la ko defal acoustique la mako ko man ak Fatma Diop umpale woon naa lolu gis nga euh, man euh, euh, vraiment benen mais beneen yoon yoon du yem ci benn ñu jëloon ci kon benn extrait waaw di fàttali juste que ni génne na woon album waaw bu doon waji a euh li ci ironie du sort -hmm. moy nongoloo ba muy génn aduna dafa génne album bu tudd àdduna waaw ci la génn àdduna waaw Ablaye Mbaye bi mi génn aduna tamit dafa génne album bu tudd aduna ci la génn dëgg la Habib it bi muy dem aduna la génne te fekk ko fi dëgg la mais nekk euh, euh, coïncidence wala wala sort ah. le destin ah, ah, ah euh, l'écrivaine nañ laaj c'est une coïncidence wala lu un coup du sort en tout cas dina tax kenn du bindati aduna de <laughs> ah yéeme na de yéme na loolu en tout cas yal na leen yàlla yërëm ñu film légui vraiment parce que suñu xarit lañ won xaritu RTS donc grand compositeur ah oui waaw loolu forum mhm. surtout Abi grand hein. compositeur musical Malal ñàkkul ne am na foo jaar ak moom waaw ñu nekk mu nekk koo xamante même sur scène comme li ko wax léegi déjà commencé woon révolutionner musique sénégalaise si ay toucham mais benen affaire bi nga xamanteni même par rapport à sa génération chargé bo ñëwee par exemple li ñuy soxla ci un spectacle Habib daf ko mën moy communiquer avec avec le public bu xasee dugg même da nga doon gis après ci musiciens yu bëri moy mhm. am communication entre musiciens moy bu jëlee basse bi mhm. guitare basse bi mun na waxtaan ak guitare solo mun na waxtaan ak ki di jouer en même temps public bi bu Habib jëlee loolu da ngay gis ne day am benn fil conducteur mom mhm. ak public bi mu nekkoon vraiment ku am open mind bu doy même à l'extérieur am na émission yu ngand yo xamanteni ñom fierté la woon ñu jé ak Bichar Bona vraiment vraiment ñu ngi koy jalé diko mm. ñaanal yalla yalla xaré ko aljana deug la euh, Abi Faye un virtuose de la musique sénégalaise xamna naa nak ci euh, lolu mm. euh, lañuy ñuy ak yow tàggoo bu dul tàggoo mm. et te donne rendez-vous le samedi prochain avec ci yenen souvenir inshallah bu soobee ah. yalla dinañ dinañ ko gën a yaatal te xam ne ak yenen thématique di di gërëm ñi nga xamné ñom laa bokkaloon plateau bu baax a baax a baax euh, di wax ni jàngaat nañ leen euh, ci soxna si euh, ci wàllum bind beeg cinéma beeg yooyu noonu juste que risque na mhm. mais li mu def am solo dem ci région yi parce que mm-hmm. Sénégal dafa yaatu mm-hmm. fexee feeñal yeneen talent mm-hmm. malal aussi mi ngi bay waaram bu baax a baax bëgg naa ñu jàpp ci li muy def parce que la danse surtout ñun Afrique dafa am lu impact bu extraordinaire bu mu war a mën a jouer ci ci li nga xam ne mooy mooy suñu li ñu bëgg bokk jamono ji surtout panafricanisme bi ñuy woote yooyu noonu nee na rythme si ñun la ne si africain non par force par force ñu fecc te fecc yi nag dafa bëri aussi ay ay affaires yu ci am euh, yoo xam ne ci biir fecc bi ay mag ñi dañ ko daan waxtaane te yooyu yëpp xam naa ne du ñàkk dinañ am occasion wu gën ko yaatal di gërëm téléspectateur bu baax di jox rendez-vous samedi prochain merci infiniment Didier Ndali euh, xaritu jeunes yi xaritu artistes euh, donc euh, dañuy on se quitte avec Ndali en musique pour bien recevoir Mami Diaw sur le plateau des rendez-vous du samedi votre émission Bat son plein Mayakama Euh, influenceuse la xam nga nak léegi mami. Mhm. fofu la, lay dalalee euh, métier influenceur rek influenceuse dafa xew de ah. waaw dafa xew nak ci jamono ji mais nak euh, bala ñuy xoss ay ni dama lay nuyu. di la ziar di nuyu suñu invité yi mhm. machallah di nuyu téléspectateurs yi ñuy sétane sur la RTS ci seen émission préférée bi nga xamante moy RVS les rendez-vous du samedi di nuyu suñu invité yi encore une fois di leen remercier ci seen téway mhm. ay ni comme ni nga ko waxee influenceuse dafa xew dafa melni nak ko def liguey liguey lañ ko def di ci gagner sen vie mais nañ ko rafetal rek lool rek mo ci am solo machallah en plus mom elle a bien chanté elle c'est elle a une voix d'or hein. ah oui oui oui mom elle a de ah. l'avenir ko jar soutenir la alors muy Maya euh, Kama xamna naa du ñàkk dinañ ko retrouver sur le plateau des rendez-vous du samedi inshallah allah euh, mami dañ lay bayyi nak euh, nga nuyo ak suñu gan et puis xamna né nak amna am loolu leen wara laaj wa bien sûr aini, xam nga RVS mom duñu tay ci li nga xamantene ne di culture tout le temps ñi ngi xol fenn fep fo xamantene ne rek ñi ngi fay yëngu ci walu culture ñu jëm ko indi invité def ay invité ci suñu plateau ngir euh, téléspectateurs yu ñuy sétane mën ci jang Marème ma ngi lay nuyu vraiment di yeesalaat nuyu di contane encore une fois ci teew bi fi teew euh, di contane itam ci euh, livre bi nga xamantene ne mujj nga ko def production en film mm-hmm. vraiment di la ci félicité mi ngi noonu nga am nak sa propre entreprise di Totem mm-hmm. ma bëgg xam ndax Totem dafa am liaison ak cinéma bi ngay def wala. waaw de plus en plus c'est important que euh, dañoo gis ne man loolu laa def remarque depuis quelques années que xam nga xale yi liiratuñu. ñëpp d'accord nañ ne xale yi liiratuñu. Mm-hmm. mais euh, comme li may wax toujours que ça soit américain yi wala wala chinois yi. Mm-hmm. man bokk na si seen politique d'action ma ma koy suivre. dama gis ne ñoom pour ñu pousser waat xale yi ñu bëggaat lecture. Mm-hmm. dañu jël euh, yenn livres yi ñu adapté ko au cinéma donc parce que chaque fois on dit les livres adaptés au cinéma que ce soit euh, Harry Potter Game of mm. Thrones 50 nuances de Grey euh, l'incroyable histoire de Benjamin Button je peux <laughs> tellement citer hein. mais ils ont dépassé les 100 millions de livres vendus parce que ont adapté scène scène Harry mm. Potter 1 un milliard Harry Potter waxatu ko sama temps il rek dafa livre à 15 000 francs je koy xool ne ko ah, di ngay jënd livre 15000 15 000, ma livre bi dafa neex donc livre yi ñi adapté xalé yi daf leen di jaral lu nekk ñu dem jënd oh bon au début chroniqueuse, on était très suivis sur les réseaux sociaux oh, mais euh, même si ñu adapté un livre comme maîtresse d'un homme marié Karma ou Salma euh, doonu ñu am possibilité jaay ko wala mais bon man si a commencé il est important que nous ayons une plateforme mhm. d'écriture pour tous les meilleurs écrivains africains parce que dañu beaucoup euh, on a on a on a vraiment développé une plateforme d'écriture yu Canada aux États-Unis ou même en Chine nous contacter nous tous pour voir wax nous plateforme j'ai dit pourquoi pas ne pas ouvrir notre propre plateforme africaine pour que ñun ñëpp et que producteur producteurs bëgg def série euh, aujourd'hui par exemple attraction éternelle qui est surtout ah comme du petit pain on est très débordé euh, chronique on on voilà chronique euh, plateforme maintenant hein, le livre il est sorti en mhm. e-book bientôt en papier da ngay mooy li may wax rek xale yi benn benn épisode lañ seetaan. Mhm. mais ñëppay jënd commencé. <laughs> ñëppay jënd avec la nouvelle génération c'est des hein, jeunes avec la nouvelle génération 18 ans toujours dama ma di laaj mhm. âge. mais ay xale yu ndaw la. effectivement ñooy jënd livre bi donc. effectivement l'écriture euh, de chronique. dafay mhm. permettre man waxatuma ko connais chronique le livre la mais on a on avait besoin. nga mënoo am talent ben talent d'écriture ba paré mënoo amo amo maison d'édition. c'est très difficile nga def ko et que la seule possibilité qu'on avait moi, comme es chanteuse bien, nga nous, on est d'abord influenceuse nous on a d'abord été des chroniqueuses avant d'être reconnues comme écrivains. Mm-hmm. donc c'était important pour nous de sortir un peu de l'ombre euh, à travers d'abord chronique. chronique. et après adapté quoi en cinéma. et pour ton information. je euh, mhm. ngi lay jeunesse bi avec la nouvelle génération je te dirai tout à l'heure mhm. que ni vraiment ni ngi euh, lecture avec euh, les plateformes comme Totem comme Wattpad Moi, personnellement moi je suis passionnée de lecture. Faut ma que que lit lire ça me mhm. passe-temps. et puis da ngay imprégné comme ni ko da ngay chronique après ñu def ko réaliser film. c'est vraiment important comme li nga wax lecture bi baxna surtout xalé yi ñu initier ci mais ci loolu Marème euh, say rêve ak say euh, réalisation projet yi lan exactement bon ba tout à thème, c'était de devenir la première plateforme d'écriture euh, en Afrique et dans le monde mm. aujourd'hui c'est de devenir la première plateforme d'écriture et de streaming dans le monde c'est ça mon objectif mm. et def ko nank nank échelon parce que comme j'ai dit hein tay chronique, yi en adaptation ñoo en série série yi chronique maîtresse Salma mhm. Karma et bientôt Bonté et Salma et aussi donc chroniqueuses yi ñun ñun ñëpp dañ mhm. on a presque la même ambition te ñun mhm. si c'est parce que Wattpad gagner 100 millions de dollars en chiffre d'affaires par mois et ne reverser rien aux chroniqueuses africaines alors que chroniqueuses africaines nous ne sommes pas suivre. je suis première sur Wattpad. sur Wattpad je suis première alors qu'il y a 3 millions de lecteurs. donc tu dois connaître euh, Jeune Nienyo oui je la connais. Ah. Jeune je connais toutes les chroniqueuses. <laughs> elles sont magnifiques. Ils aussi, Cheikh Makessila, voilà, mm. c'est vraiment des jeunes qui sont hyper talentueux. Mm. Et aujourd'hui, voilà, euh, pour moi, euh, parce que Wattpad, c'est un site canadien, qui donnait 10 000, euh, qui payait 10 000 dollars aux écrivains canadiens sur la plateforme, mm-hmm. alors que nous, on n'avait rien c'est comme TikTok et autres. Oui, xam droit d'auteur euh, lors de la journée mondiale du livre Nous dinañ ñëw ak suñu mhm. grand azizien du mhm. et euh, donc euh, nous la Mamie, la biennale de l'art africain contemporain mhm. prévue initialement le ce 16 mai là c'est le prochain du 16 mai au 16 juin et reportée donc au 7 novembre prochain 7 novembre 2024 au 7 décembre 2024 euh, euh, donc nous euh, ma ko ñu olof biennale bi nga biennale de l'art africain contemporain moy fête art et culture fi ci Sénégal dañ ko le 16 mai euh, au 16 juin dañ ko reporté nag ministère ben communiqué boo xam dinañ ci ñëw ci kanam bu ministère de la culture def des sports et de la jeunesse. Euh, donc euh, dans ce cadre là dinañ recevoir ci kanam mami Idrissa Diallo mon nag commissaire d'exposition le art visuel. pour nag comme nettali si gémmiñu boromam la dàqee. pour ñu gën ci mën a waxtaan ndax xam nga nguur gu ministre bu bees bi. pour mener jox gëddam biennale bi envergure bi nga xam ni mom la yello, motax nak nag dañ ci bëgg liggéey pour que à travers le monde gën gën ko mën loo euh, donc loolu euh, ci kanam lay nekk euh, yaakaar nañ ko balaa émission bi di jeex ndax nag temps bi dafa gaaw autant oh, suspend ton vol lii dal doy na waar ah mami <laughs> vraiment duñu sax doyal <laughs> dëgg la donc xam naa dañ lay bàyyi ak malal waaw malal maa ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal bu baax ci teewaay bi ma lay laaj rek ci li nga xamante ne mooy seen organisation bi ngeen amal euh, seen recrutement et d'ailleurs d'habitude, ay xalé ngeen di euh, former maintenant da ngeen di sélectionner par euh, naka ngeen di sélectionner xalé pour ñu pour ñu faire part ci seen organisation bi ngeen amal. donc ci li nga xamante ni moom formation bu ñuy def mooy école de danse bi nit ki moo koy bëgg ba pare la plupart ñun dinañ peut-être gis ne compagnie bi soxla na kenn ku am talent. Mhm. ñu gis la ne kii kat buñ ko defaree par exemple pendant un an deux ans dina mun a indil njëriñ compagnie bi. mais keneen tam mun na ñëw ne ah man de dama bëgg a ñëw bokk ci compagnie bi. mais de toute façon pour ñu former la il te faut deux ans. deux ans deux ans pour nga mun a vraiment exercer euh, métier bi donc da ngay nekk stagiaire pendant deux ans. d'accord ñu mun la jàngal li nga xamante ni moom technique de danse yëpp donc euh, sur scène ni nga war ak yu bëri daal war la ko jàngal war la jàngal aussi. Mm. ni nga xam ne moom ngay protéger sa sa yaram. Mm. anatomie du corps nak ngay mun a defee sa yaram yooyu yëpp aussi ñu la koy jàngal parce que fecc aussi. Mm. wérgu yaram la ba paré effectivement da ngay am endurance. justement euh, donc participer ngén ci ay festival wala fan à travers le monde wa pacifié nañu ci ay festival compagnie Bakalama vraiment ci aduna bi yëpp mun naa ko wax mhm. euh, septembre bi passé moom la ñu jël suñu dernier distinction boo xamante ni ci 2023 mhm. mu c'était en Espagne mhm. mais avant loolu en 2009 am nañu benn raaya bu mag boo xamante ni ñu ngi ko jëlee woon Algérie d'accord mais réalisation scénique meilleur danseur dem nañu Corée aussi jël fa meilleur médaille d'or ak délégation sénégalaise bi donc njukkal artistique man boobu moom a gën a neppa sama dëkk ma ko defal sax donc euh, nga nga bok ci ak ñu mel ay Youssou Ndour ay Ousmane Sow ñu doon sculpté ñu ragné la ci lolu lolu mm. déjà benen benen bir la donc am na ay raay yu bari yo xamante jël nañ ko à l'extérieur quoi. Hein. merci beaucoup dëgg la euh, donc euh, mm-hmm. mami comme ni mako ko doon annoncé sànq Idriss Diallo mom nak mu ngi en ligne donc dañ doon nam mu ñëw ci plateau bi mais benn la donc monsieur Idrissa Diallo commissaire d'exposition art visuel di ñu waxal nak ci biennale bi

Euh, dina jafe nak pour nit ne le di ak li motax ñu dal di reporter biennale bi mais man en tant qu'acteur culturel dima ci mën jangat rek moy eh, dafa melne dafa am ben transition bo xam en amo defuñu ko quoi parce que état c'est vrai que continuité la donc amna yenen autorité autorités yu bees yoo xam ne ñoo ñew donc je pense que en amo ñi nga xam ñoo fi nekkoon amna na bo boo bu doon tegoon nañ ko pare donc transition bi da fay dal di yomb parce que xamnañ nañ ne ñu ngi jëm ci ben manifestation bu mag bo xam dafa tuddu biennale de Dakar ak li mu ëmb ci charge ci lourdeur en termes d'organisation donc suñu anticiper woon un peu ci parce que nous am na loo xam ne réerewul kenn mbir dëkk bi traversé na ci ay donc entre 2021 et un ba léegi ba deux mille donc buñ ko tegoon nga xam ñu ngi jëm ci benn manifestation bo xam ne la dox donc dafa nekk biennale de Dakar bo xam muy manifestation bu mag bo xam ça fait 30 ans ñu koy doxal donc yaa am naa yaakaar ne bu doon teg nañ loolu donc doon nañ anticiper ci organisation donc qui fait que bu doon nañ ci anticiper donc duñu am benn blocage boo xam ne peut-être dana tax dana conduire à ce que biennale bi ñu laay ko organiser donc soit ba ñu tollee ci loolu état bi nga xam ne moo fi nekk léegi en en l'occurrence autorité yu bees yi donc ba ñu ñëwee ah ñu jël dossier bi en charge donc xool parce que man néew ma ci administration donc nga xool par rapport ak fi nga toll li nga xam ne war nga ko teg ak boo xoolee itam biennale Dakar tamit dafa nekk manifestation bu mag boo xam ne wax dëgg boo koy organiser da nga koy jox gëddëm donc est ce que dañ koy organiser nam waare donc jox ko gëddëm parce que boobu fekk na lépp mat ou bien am na ay affaires yoo xam ne des na donc nga daal di koy mujj reporté pour que nga bañ a organiser benn biennale au rabais am naa yaakaar ne loolu moo tax euh, ñu daal di toxal date bi parce que man ñi di wax ak nekk naa benn ci commissaire exposition salon national des arts bi nga xam ne organiser nañ bañ ko organiser loolu monté une exposition bi ci galerie bi top nañ ñaari weer ak genn wàll pour mën am date juste pour soit président de la république ñew wala pour premier ministre ñew pour ouverture bi donc vous voyez un peu le temps qu'on a fait donc alors que exposition bu tegoon nañ ko pare donc lool lay wax anticipation par rapport à organisation man dal ci li japp ci la yakar moy que on n'a pas su anticiper en tout cas par rapport ak fa nga xam ne fa lañ jëmoon qui fait que buñ ci toll woon donc nous ñu war am blocage pour organiser manifestation man loolu loolu laa jàpp ci ci report bi nga xam ne deug euh, la léegi euh, nee nga problème anticipation peut-être moo posé wu euh, ñu la laaj biir schéma organisationnel bi ak thème yi nga initialement est-ce que c'est maintenu ak pays invité parce que Cabo-Verde lañ wax États-Unis est-ce que c'est maintenu Oui, non du changer parce que devant directrice technique directrice artistique pardon qui s'appelle en l'occurrence euh, Salimata Diop donc moi moi indi woon benn thème tout ko The Wake donc le sillage donc moi moi indi woon euh, thème boobu la indi en fait pour pour pour pour pour lu mu war ligué, en fait ci biennale donc loolu moom du changer parce que mënul changer beneen bi moi artiste yi nga xam ne lañ sélectionné je pense que su ma il y avait aux environs de naa ay artistes pour être plus précis de naa lañ sélectionné pour leur. donc loolu tamit c'est maintenu mun duñ ko changer parce que on parle de la de la quinzième édition de la Biennale de Dakar donc il y a dafa dafa dafa nekk donc tout ça moom la reporter donc Biennale bi et souvent et je vais profiter en fait effectivement du du micro de la RTS si vous permettez parce qu'en en fait dafa benn communication buy jàll bu ñuy wax ay off ak in parce que in bi l'officiel c'est-à-dire in bi exposition sélection exposition internationale donc ñi nga xam exposition bi ñu war ancien palais du Sud mooy exposition internationale donc une exposition yooyu ci bokk mooy euh, am euh, le salon du design am exposition des collectionneurs et cette année-ci aussi une exposition hommage à un artiste qui est disparu Mohamed Il y ak une exposition boo xam ne les pavillons nationaux donc il y a le pavillon Sénégal avec les pays invités à savoir les États-Unis et, le Cap-Vert donc loolu moom mooy le in mooy l'officiel maintenant officiel bi aux alentours de de, l'officiel il y a une exposition yoo xam ne nga c'est dans le cadre du off off nag mooy képp koo a ne acteur culturel nga nga nekk galeriste wala commissaire d'exposition wala critique d'art wala artiste nga organise sa manifestation bopp mais communication bi jàll bi et c'est heureux que mu jaar à travers les micros de la RTS mooy que biennale bi ñu reporté donc c'est la biennale de Dakar la 15e édition de la biennale de Dakar moom la ñu reporté kenn reporté wul in bàyyi off donc bu ñu reporté in bi donc ça va avec le off parce que le off il est adossé au in ñoom ñaar ñoo mais à travers les réseaux sociaux dafa mel une communication buy dox boo xam ne dafa mel ne dañuy xaw a nax ñenn ñi ne leen dañ une bi la ñu reporté bàyyi ci off bi alors que report biennale de Dakar mooy lépp lañu reporté parce que off boobu ñuy wax noonu pour nga bokk ci da ngay war def da nga war dem sur le site de la biennale am ben benn formulaire boo xam ne moom ngay télécharger daal di remplir yow ban yow yaay ban artiste wala yaay ban galerie yan artiste ngay exposé ce vernissage kan la sa exposition kan la ak sa note conceptuelle en tout cas un résumé de votre exposition boko ko envoyé waa biennale daal di lay tondu dal dina la jot nañ sa ki jot nañ jot nañ sa exposition léegi nak buñu tolo ci bienal en terme d'organisation des offres dafa am ben brochure bo xamné bienal daf koy édité avec tous les programmes offres de la biennale et cette année ci sax dañ doon innové ñu yokkaale ci ben application bo xamné dañ ko ci doon boolewaale pour que offre yépp nga xam exposition yépp de manière générale bon tu bëgg garder vraiment nga nga vraiment avec les informations via cette application là et je pense je vous remercie en fait me permettre un peu ma ma di précision parce que amener sur solo trop alors euh, euh, monsieur Diallo Idrissa Diallo euh, pour les férus d'art lan nga sur notre chaîne à travers notre chaîne la RTS la télévision de tous les moments question mais pour les férus d'art ni nga xam ne d'art les passionnés d'art et de culture euh, ban message nga leen di jox ndax report biennal, bi fi mu a été am ñoo ne donc euh, je précise que c'est prévu la biennale de l'art africain contemporain le 7 novembre prochain au 7 décembre euh, ban message nga leen di wax waaw report bi Euh, état moi organisé donc état bi nga xamné ne organisé moom moo maintenant am na ñoo xam dañu dañu bon am ñoo euh, dañu jël ay engagement c'est-à-dire dañu invité artistes fay leen seen billet donc euh, avec tout ce qu'il y a comme charge par rapport à l'organisation d'une exposition donc ñooñu teg nañ loolu ba pare loolu da ngay toll foo xam ne ko mën reporter parce que c'est une manifestation qui a déjà été organisée depuis deux ans ou depuis un an donc soit nga def ñaar soit yow yaay am sa option bopp soit nga ni damay de mon koy reporté dans di novembre dans di def sa manifestation ou bien nga ne damay manifestation comme ce qui est en train de se faire parce qu'il y a plein de gens qui avaient en amont organisé des manifestations ils ont préféré les maintenir mais maintenant maintenir sa manifestation c'est une exposition est-ce que est-ce que est-ce que exposition organisé exposition off biennale donc je ne pense pas que nous considère comme off biennale c'est une exposition parce que pour gagner off biennale le fait que nous biir biennale dans la mesure où la biennale a déjà été reportée au mois de novembre donc c'est des expositions comme toutes les expositions mais pour ce euh, c'est pas une exposition que je pourrais appeler off de la biennale parce que moi, j'ai des programmes qui xam dans euh, dama maintenir dama koy mais bon exposition les donne, mais ce sera pas une exposition off de la biennale parce que biennale amour. Eh bien, Très bien, euh, Monsieur Idriss Diallo, commissaire d'exposition art, visuel Biennale de l'art contemporain africain Nous euh, ngi lay remercier infiniment de sa disposition sa disponibilité à, participer euh, au rendez-vous du samedi euh, rendez-vous très prochainement sur nos antennes merci beaucoup am remercier pour ñu merci infiniment à vous et bon week-end à vous. alors bon week-end également à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent ici au Sénégal comme à l'étranger votre émission les rendez-vous du samedi bas, son plan euh, donc nuit euh, fateline biennale de l'art africain contemporain d'un ko initialement ce 16 mai au 16 juin reporté nañ euh, euh, pour des raisons yu euh, euh, évoquées, cinq problèmes d'anticipation ak yeneen mais bon sotti chèque def pour gagner des defar la ndax gouvernement bu bees bi donc contexte national et international fekk il faut ñu defaruwaat ndax envergure bi ñu bëgg a jox nag biennale bi au plan africain et international yakarna organisation daf ko laaj ñu nuyu bu baax madame Salimata Diop di critique d'art di commissaire d'exposition moom tamit du ñàkk fii ak biennale bi mami ñu dalal ko fi, si suñuy plateau des rendez-vous du euh, samedi euh, Tant bi nous avons de de donc dañuy donne euh, certainement l'honneur aux femmes Mariam nga wax ñu projet projet bi déjà la promotion de la sortie de la série mhm. sera bientôt mois de mai bi inchallah et après voilà projet yi du on ñoo continue en amont d'écrire des scénarios et voilà et de faire euh, la promotion, surtout de la sortie de la série Beauté Maudite. Justement, en parlant de Beauté Maudite, voici la bande-annonce. On, la propose à l'instant donc à nos amis téléspectateurs et on se retrouve juste derrière. Je m'appelle Khadija Badji. J'ai été maudite depuis ma naissance et ça ne changera jamais. Le plaisir volé de mes parents a détruit toute ma famille. Depuis, ma grand-mère n'a plus connu la paix. Moi y compris. Le poids de son passé a été mon bouclier face aux hommes. Je démissionne, Et comme le phénix, je sais toujours renaître de mes cendres. Euh, voilà, à l'instant donc, Beauté maudite, mhm. euh, signée d'après la célèbre chronique de Ndeye Mariam Diop, qui est ici sur notre plateau. Euh, Mariam, balaa bay ngatago dany nga euh, année. dañuy seetaani. année, c'est suñu coup de cœur musical ñu dem ko donc coup de cœur bi xam que dañ koy d'accord donc dany bàyyi rek Malal nga lan nous di wax né ñu ngi invité danseurs yépp ci lundi 29 journée internationale de la danse fële sa Blaise Senghor ñu ngi wo artistes yépp di remercier aussi comité bi di gërëm aussi di centre RTS invitation bi mais di wax vraiment cette année nañu ñëw au centre culturel Blaise le matin cérémonie d'ouverture bi le soir spectacle yi vraiment dinañu gis vraiment toute la communauté de la danse ñëw fa fait ak suñu nouveau ministre de la culture oui, secrétaire d'État ministère de la culture jeunesse sport avec secrétaire d'État Fofu ci Blaise Senghor dëgg à euh, Mariam lan ngay euh, bon beauté maudite fi mu je cinéma cinéma pâté tous les jours ñaari yoon lay daw pendant trois semaines maa incité sama ñëpp képp ku liiroon Beauté Mérite ak ñi ko ñu dem découvrir euh, voilà l'histoire la belle histoire de Khadija mhm. euh, voilà et j'en profite aussi pour remercier euh, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, particulièrement le producteur délégué Melocan Pix et toute l'équipe technique merci infiniment alors mami est à côté. merci beaucoup Aini euh, di euh, wax euh, jërëjëf ñi ñu doon seetaan di len wax té mekté la won ñu ak yeen ci seen émission bi di RVS Aini di remercier waat suñu invité yi di len jox dig ba semaine prochaine inshallah, ci un numéro RVS les rendez-vous du samedi à samedi prochain inshallah. merci mami yow tamit sa Euh, donc dañuy remercier nos amis invités di remercier toutes les équipes qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission.

mu fete sama xel mooy daan ci bërëg sama xol te sama xol moo bu doole ñu ma gënal suñ gàll bàyyi na ñu jot ñu war a ndax xam naa ni léegi àdduna dootuma baal fu may mujjee moom